alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain mbokk jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala ragal yàlla mooy defar bakkani doomu aadama yi ak xol yi mooy tax itam suñuy jëf baax suñu borom subhanahu wa taala nangul ñu mbokk jullit yu góor yi ak jigéen yi ndax am na ci àdduna dara lu ëpp solo gannaaw suñu diine gannaaw suñu pas-pas ak wéetal yàlla subhaanahu wa taala suñu boroom ñu woo suñu jikkoo yittewoo kersa gi nga xam ne mooy ndox mi dund ci yaramu doomu aadama mbokk jullit yi lan mooy tee ñu aar li nga xam ne mooy suñu jikkoo lan mooy tee ñu sagal suñu bopp sàmm suñu der ci lépp loo xam ne daf koy ñaawal ci lépp loo xam ne daf koy tilimal mbokk jullit yi lii nga xam ne mooy responsa responsabilité sàmm kersa ak responsabilité aar suñu jikko ak ñawal suñu der ci lépp loo xam ne ay ñaawteef la yàlla subhaanahu wa taala daf koo yen góor ñi waaye itam yen ko jigéen ñi nga xam ne ñu baax lañ ñu nangul yàlla subhaanahu wa taala suñu borom mbokk jullit yi nañu xool ñaari yëf yi nga xam ne ñu ngi koy romb saa su ne lii marchandise mi nga xam ne ñu ngi koy tuddee fagu jaay ak marchandise mi nga xam ne ñu ngi koy tuddee wékki ana lan moo séparé ñaari marchandise yooyu ndax du pantalon bi nga xam ne moom la ñuy jëndee ci fagu jaay bi ñaar juróom fukki wala téeméer ndax du moom la ñuy jëndee ci wékki bi 1000 francs wala 5000 kon nañu xool lan moo leen tàqale ñoom ñaar lan moo tàqale seen valeur yombal bële seeral bële bële dañ koy këll këllee ci mbedd mi di ko saax saaxee ku mu neex nga tànn bu la neex bële ñu daal di koy negg neggal aj ko ca kaw daal di koy muur aar ko ba benn loxo du ca yegg lu dul loxo koo xamante ne si ne dafa bëgg a jënd misaal moomu mbokk jullit yi nañ ko teg mu nekk ci suñu kanam kanam suñu mbokk soxna yi nga xam ne ñi ngi nekk ci mbedd mi ñi nga xam ne dañu futti seen bopp ba set wicc taxatuñu benn boo xam ne day muur seen yaram sàmmante wuñu kerse gi nga xam ne mooy mooy mooy mooy diinay nit ki waaye sàmmante wuñu yàlla ji subhaanahu wa taala sàmmante wuñu jikkoy lislaam yi nga xam ne moom lañ xamoon ci cosaan di génn ci mbedd mi di tuwaaleto nu leen neex di doxee nu leen neex di waxee nu leen neex nañ leen comparer ak ñi nga xam ne dañoo nangul yàlla subhaanahu wa seen borom muur seen yaram ba la ca war a feeñ rek di feeñ sax ci seen biir biir kër ya duñu génn lu dul loo xam ne lu mënta ñàkk la mbokk misaal moomu nga xam ne joxe nañ ko léegi euh, mën naa ne jigéen gën naa kawe loolu jigéen gën naa tedd loolu itam ndax yàlla subhanahu wa taala moo teral jigéen jox ko li nga xam ne mooy xel boole ko ci ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi jox ko li nga xam ne mooy risaalatul islaam gannaaw bi nga xamee ne njëkk lislaam di ñëw jigéen amul woon benn cër ci àdduna dañ ko doon jaay di ko jënd dañ ko daan luye di ko joxe ku mu neex nga jëfandikoo ci moom kem li la neex ci bànneex bu bu jëkkëram faatoo ñu donn ko comme ni ñu donnee alali borom këram boobale noonu la jigéen meloon njëkk lislaam di ñëw lislaam ñëw daal di teral jigéen yëkkati jigéen def ko muy àndandoo góor muy borom kër def ko muy àndandoo góor nekk soxnaam yëkkati jigéen def ko muy yaay joo xam ne topp ko bokk na ci li tax bi tàbbi na waaye teg ci kawam nag ay responsabilité am ay santaane yoo xam ne sant na ko jigéen am ay tere yoo xam ne suñ borom subhaanahu wa taala tere na ko jigéen mbokk jullit yu góor yi ak mbokk jullit yu jigéen ñi suñ borom subhanahu wa taala tudd na ay aay yu bëree bëri ci alquranul karim yoo xam ne fu mu tudd góor tudd na fa jigéen ngir yëgal ñu ne ni ma santee góor mu jaamu ma noonu laa santee jigéen mu jaamu ma ni ma santee góor mu bàyyi yi ma xaraamal noonu laa santee jigéen mu bàyyi yi ma xaraamal suñ borom subhanahu wa taala mi ngi wax ne fastajaaba lahum rabbuhum anni la udiu amala amilin minkum yàlla subhanahu wa taala nee na du ma sànk jëfi kenn ci yéen ak ku mu mën a doon moo xam góor la wala jigéen suñ borom subhaanahu wa taala dellu waxaat ne ku jëf-jëf ju baax ci yéen moo xam góor la wala jigéen te jamono jëm koy jëf mu nekk jullit dinaa ko dundal ci àdduna dund gu teey yowmal xiyaam ma tàbbal ko àjjana ab aayaa ngi nii ci suuratul ahzaab suñ borom di tudd melokaanu jullit ñi nga xam ne nangul nañu ko melokaan bu mu jox góor jox na ko jigéen suñ borom na jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi way gëm ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi jaamukati yàlla yu góor yi ak yu jigéen yi sarxekat yu góor yi ak yu jigéen yi muñkat yu góor yi ak yu jigéen yi way toroxlu yu góor yi ak yu jigéen yi sarxekat yu góor yi ak yu jigéen yi way koor way woorkat yu góor yi ak yu jigéen yi ñi nga xam ne dañuy aar seen pay di ko ñoŋal ci xaraam yi ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi way tuddkati yàlla yu bëri yi ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi ñoom ñépp yàlla waajal na leen njéggal waajal na leen itam tiyaaba joo xam ne ju kawe la mbokk jullit mu góor ak mu jigéen kon nañu xam ne yittewoo mbiru jigéen yittewoo muuraayu jigéen yittewoo colu jigéen su fekkee ci jamono ju ci nekk am na solo jamono ju ci nekk lislaam jox na ko yitte jamono jii ñu nekk moom moo rawati jamono joo xam ne jamono ubbi ko lañ koy tuddee jamono joo xam ne mooy vingtième millionnaire lu neex doomu aadama mu def àdduna bi yépp nekk ci sa biir néeg nga di ko xool jamono jooju mbokk yi ci lañu war a gën a yittewoo jigéen ci lañ war gën a sàmm jigéen ci lañ war a gën a aar jigéen ci lañ war a gën a càngat felug jigéen ndax mel na ni ko borom bi bëggee woon wala déet yonente bi alayhi salaatu wasalaam bàyyiloo woon nañu xel bu yàgg-yàgg ci mbiru jigéen daana wax naan bàyyiwuma sama gannaaw fitna bu gën a rëy bàyyiwuma sama gannaaw fitna bu gën a màgg ci góor ñi bu raw jigéen daana wax itam ci xadisu buxaari fattaqu dunya wattaqu nisa moytu leen àdduna te moytu jigéen moytu leen àdduna te moytu jigéen fitna ji njëkk alak banu israil ci jigéen la jaare yàlla ñu yàlla defal tawfiq ba ñu mucc ci li nga xam ne mooy fitnay àdduna waaye ñu mucc ci li nga xam ne mooy fitnay jigéen mbokk jullit mi nangul yàlla subhaanahu wa taala mu góor wala mu jigéen fitnatun usma wa musibatun kubra fitna dëgg ngi noonu yonente bi alayhi salatu wasalaam feddali na ko musiba bu réere itam mi ngi noonu mooy jigéen ji bàyyi diina yàlla subhaanahu wa taala jigéen ji bàyyi attay borom bi subhaanahu wa taala jigéen ji jàng col ci keneen koo xam ne noonu yàlla subhaanahu wa taala la ak yonent jigéen ji bàyyi roy saxaaba yonent bi ridwanullahi alayhim di toppandoo yéefar yi nga xam ne dañoo sànni téerab yàlla bi subhanahu wa taala seen gannaaw di jël ci télévision bi ay modd yoo xam ne moom lay moom lay sol di toppandoo ñi nga xam ne ñooy ñu wedd yàlla subhanahu wa taala ñu nangulut yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk jullit mi nga xam ne nangul nga yàlla subhanahu wa taala nangul yonent bi alayhi salaatu wasalaam képp koo xam ne ànd nga xel képp koo xam ne ànd nga ak sa sago waxuma la sax nga dellu ci texte alquran ak sunna waaye war naa wóor na lii am ci suñ société bi tey ñu di ko gis ci mbedd mi di ko gis ci place yi ñuy sangoo di ko gis ci bépp bërëb boo xam ne dem nañu fa musiba lay déclaré boo xam ne xalsat naa jëm ci suñu kaw yàlla nañ borom bi subhanahu wa taala defal tawfiq mbokk jullit bu ñu dellee ci téere borom bi subhanahu wa taala wala ñu dellu ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam dinañ fekk ay aaya yu bëree bëri yàlla di sant jigéen ji mu muuru comme ni nga xamee ne noonu la ko borom bi faram-fàccee yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeralee ko noonu suñu borom a ngi wax ak jigéenu jullit naan yow mi nga xam ne yaay jigéenu jullit del damm sab gis ci góori jàmbur ñi bul def góor goo jàkkaarloo di ko bojj say bët di ko wane da ngaa wow waaye itam del aar sa pay bul feeñal sa taar lu dul li nga xam ne feeñ na ci te loolu borom xam-xam yi nee nañ mooy ay tenqam ak xar kanamam loolu rek moo war a feeñ ci pelu jigéenu jullit kon mbokku jullit suñ borom subhaanahu wa taala nee na wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna nee na boo solootee ba war a génn na nga jël muuraay goo xam ne dafay muur sa bopp waaye dafay muur sa baatu mbubb ba dara ca sa taar du feeñ ngir góori jàmbur ñi borom bi nee na wala yubdiina zinatahunna illa li na nee na seenub taar ak seenub toilette bu leen ko wan kenn ku dul seen borom kër wala bu leen ko wan kenn ku dul seeni baay wala ki nga xam ne mooy bàyyi seen borom kër wala ki nga xam ne mooy ay seeni doom yu góor wala ki nga xam ne mooy seen doomi borom kër wala ñi nga xam ne ñooy seeni frère wala ñi nga xam ne seen doomi frère lañ wala ñi nga xam ne seen doomi sœur lañ wala ay soxna yoo xam ne ay jigéen lañ comme yéen nekk ay jullit ñu nangul yàlla subhanahu wa taala wala mbindaan wala jaam boo xam ne dafa lay liggéeyal wala xale bu góor bu tuuti boo xam ne xamagut bànneexu jigéen wala surga boo xam ne dafa nekk ci kër te amul soxla ci jigéen suñ borom subhanahu wa taala nee na ñii rek ñoo war a gis seenub taar waaye déet góor ñi nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi déet góor ñi xam ne ñoom ngay dajeel ci place yi wala góor ñi nga xam ne ñoom ngay dajeel ci kaar yi suñ borom subhanahu wa taala nee na wala wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yuxfiina min zinatihinna nee na jigéen ñi bu ñuy dox ci mbedd mi di yëngal seen tànk wala ñu yëngal seen yaram ngir góor ñi yëg li ñu àndaale moo xam xeetu parfum la buy jóge ci ñoom wala yu yëngatu yoo xam ne day wan góor gi ne am na jigéen ju romb moo xam ca dàll yàlla wala loo xam ne takk na ko mbokk jigéen lii mooy santaane borom bi subhanahu wa taala ci képp koo xam ne nangul na yàlla subhanahu wa taala di jëfe li rot ci téeréem suñ borom subhanahu wa taala dellu ñëwaat tàmbalee wax ak soxna yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko yow yonent bi waxal ma sa soxna yi waxal ma doom doomi jigéen yi waxal ma mboolem koo xam ne jigéenu jullit la yu yuduniina alayhinna min jalaabibihinna dhalika adna ay yurafna fala yuzayn ne leen nañuy sol col goo xam ne gu mat sëkk la nañuy sol ay jàllaabi yoo xam ne dañ koy sëmbartal ci seen yaram loolu moo gën ñu xam leen na ñi ay julit lañ kenn du tab kenn du leen jëme tuuma kenn du leen jëme itam xalaat boo xam ne bu ñaaw la kon loolu mooy santaane borom bi subhaanahu wa taala kan moo pare ngir jëfe li yàlla subhaanahu wa taala santaane ci téeréem tàmbalee ko ci soxna yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñ borom subhaanahu wa taala dellu ñëwaat sant yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jàngal ay soxnaam jàngal mbooleem koo xam ne jigéenu jullit nga naka la war a jëfe naka la war a soloo naka la war a doxee yàlla subhaanahu wa taala wax ne yaa nisaa nabi lastunna ka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taqda'na bil qawl ee yéen soxnay yonent bi nuroowu leen ak jigéen ñi ci des kon nag na ngeen ragal yàlla subhaanahu wa taala te loolu santaane la boo xam ne mboolem jigéenu julli def ciy dugg suñ borom nee na fala taxdaana bil qawlu bu leen di neexal seen kàddu ci kanam góor góori jàmbur ñi kon ki nga xam ne xolam dafa feebar day commencé di yëg bànneex waaye nag waqul na qawlan maarufa de leen wax wax joo xam ne ju jub la joo xam ne faj na seen soxla rek ngeen yem coocu te waqar na fii buyutikin na ngeen sax ci seen biir kër yi wala tabarrujna tabarrujal jaahiliyatil ula bu leen di tubaaletu comme ni cedd yu njëkk yi di tubaaletoo di génn ci mbedd mi di wan góor ñi seenu taar mbokk jullit bu fekkee yàlla subhanahu wa taala soxna yonent bi lay sant sant santaane bile kon naka mo suñu soxnay jamono tey jii kon ñoom ñoo gën a yey ci jëfe santaane yàlla bile ñoo gën a ci sax ci seen biir kër yi ñu gën a yey ci sëmbartal ay sër ci seen yaram ñoo gën a yey ci wax ak góor ñi kàddu goo xam ne bu dëggu la te yam ca loola bañ a neexal seen kàddu bañ a randamtal seen i wax ci kanam góor ñi nga xam ne ñu ci ëpp feebaru bànneex tàbbi na ci seen xol suñ borom subhaanahu wa taala dellu ñëwaat di jàngal jigéenu jullit ni mu war a jëflanteeg góoru jàmbur ne wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min waraai xijaab su ngeen demee ba am soxla ci waxtaan ak góoru jàmbur na ngeen ko def ci gannaaw muuraay na ngeen ko def ci gannaaw kiiraay te nag zalika atharu li qulubikum wa qulubihin loolu moo gën a laabal seen xol yi yéen góor ñi loolu moo gën a laabal seen xol yi yéen jigéen ñi allahu akbar mbokk julli suñ borom subhanahu wa taala tuddal na la sekkere bi nga xam ne moo tax mu santaane muuraay moo tax mu santaane de sekk am lu dox sa diggante góoru jàmbur mooy zalika atxaru li qulubikum wa qulubihim na dafa bëgg a laabal xolu way gu xolu ñi nga xam ne ay góor lañ laabal xolu ñi nga xam ne ay jigéen lañ ba kenn ci ñoom bànneex du jóge ci moromam tàbbi ci moromam bànneex boo xam ne du xam fan la ko fu dul foo xam ne alkandera wala lu naqari borom bi subhanahu wa taala mbokk jullit mi nangul yàlla subhanahu wa taala kon texte yi nga xam ne dégg nga ko tey mu jóge ci alquranul karim wala ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam doy na képp koo xam ne dafay wut dëgg moo xam góor la wala jigéen mu ngir moo xam ne muuraay santaane la boo xam ne suñ borom subhanahu wa taala moo ko def du loo xam ne ay doomu aadamaa ko santaane du loo xam ne modd la boo xam ne benn kuréel ñoo ko moom waaye képp koo xam ne nangul nga yàlla képp koo xam ne nangul nga yonente bi alayhi salatu wasalaam sa doxali na ngi nii sa coro ngi nii bu fekkee jigéen nga goo xam ne dangay ngay wuyu yàlla subhaanahu wa taala ak yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk jullit mu jigéen mi nangul yàlla subhaanahu wa taala mbokk jullit mi nga xam ne sët nga ci aïsa radiallahu anha sët nga ci xadija soxna yonente bi alayhi salatu wasalaam sët nga ci fatima doomu yonente bi muhammad sët nga ci sumaya yemi njëkk a faatu ci lislaam taqool ak muuraayu jigéen taqool ak jàllaa bi yàlla sant jigéen bul déglu ñi nga xam ne dañuy fàdd jigéen dañ koo bëgg a yëkkati ba ca kaw daaneel ko ngir di ko foyee dañoo bëgg a def jigéen muy muy sëngam boo xam ne dañ koy sàqami nu leen neex ñu jëfandikoo ko ci seen i bànneex ci seen coobare bul nangul ñoo ñu mukk mbokk jullit bul nangul seytaane ak gaa yi nga xam ne ñoo koy nangu nangulal yàlla subhaanahu wa taala nga dund ci àdduna dund goo xam ne bu neex la dund yowmal qiyaam texe goo xam ne ci biir àjjanay borom bi subhaanahu wa taala lay doon kon mi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala terale ci gëm yàlla la la borom bi subhaanahu wa taala yëkkatee kon yëngalal sa ngëm gi nga xam ne mi ngi ci sa xol déglu texte yi nga xam ne moo jógee ci alquranul karim déglu waxe yonent bi alayhi salaatu wasalaam bul déglu ñi nga xam ne dañuy neexal seen kàddu nan la yow yaa fi nekk yaay nandite bu fi toppandoo ñi nga xam ne ay meer lañ bu fi malaj malaji mel ni saytaan waaye wuyul yàlla subhaanahu wa taala wuyul woote yonante bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk jullit yi gëm yàlla subhaanahu wa taala noonu lislaam yi dañoo mël ñi nga xam ne ñooy jigéenu jullit ngir bëgg saa jaare màbb li nga xam ne mooy diine borom bi subhanahu wa taala waaye kenn ku ne ci ñun war naa posé boppam question lan la ñu bëgg ci jigéen ak lan lañ ko nammal lan la ñu bëgg ci jigéen ak lan lañ koy préparé dañoo bëgg jigéen ji bàyyi li nga xam ne mooy diineem dañoo bëgg jigéen ji bàyyi li nga xam ne mooy jikkoy lislaam dañoo bëgg jigéen ji bàyyi li nga xam ne mooy aar boppam ak deram sàng awraam sàng péyam di na ci mbedd mi nekk fawukaay boo xam ne moom la ñuy publicité nekk fawukaay boo xam ne moom la ñuy rafetale ay journaux nangul saytaane weddi yàlla subhaanahu wa taala boroomam loolu mooy fenn wi noonu lislaam yi di rafetal ngir bëgg a fab bi mboolem ku gëm yàlla subhaanahu wa taala moo xam góor la wala jigéen mbokk jullit yow mi nga xam ne gëm nga borom bi subhaanahu wa taala na nga yëg ne kàddu gi nga xam ne yaa ngi koy dégg jëmale wuñ ko ci jigéen kese waaye danañ ci boole ki nga xam ne mooy góor moo xam jëkkër la nekk ci biir kër wala baay bi nga xam ne moo jur doom yu jigéen yi wala frère bi nga xam ne ay sœuram ñooy tubaalatu di ko romb ana ñi nga xam ne ñooy góor ñi nga xam ne dañoo amoon kersa ana góor ñi nga xam ne dañoo amoon jom ak fayda ana li nga xam ne mooy fiiraange ji nekkoon ci suñu maam yi démb képp koo xamante ni seen jigéen nga woon nekk njegamaar dañ daan sàkket aw sàkket woo xam ne mooy dox sa diggante ak buntu kër gi ba kenn koy romb du gis ci dara loo xam ne waru koo gis ana loolu nga xam ne moo fi nekkoon démb waaye ana li yàlla subhaanahu wa taala bëgg ci jigéen ba tax jigéen ji nga xam ne njegamaar la ñu koy tuddee zawaatul xuduur muy ñi nga xam ne ci biir mbeñ gàcce la ñuy tàbbi ana loolu nga xam ne moo fi nekkoon démb ana loolu nga xam ne mooy santaane borom bi subhanahu wa taala kon bokk jullit nañu dellu ragal yàlla subhanahu wa taala nañu nangul yàlla subhanahu wa taala suñu borom te tuub ci moom lépp loo xam ne bàkkaar la ak ñaaw ñaaw ñaaw ñaawi jëf te ñu gaaw jëfe li nga xam ne mooy santaane yàlla ci suñu soxna yi gaaw jëfe li nga xam ne mooy santaane yàlla ci suñu doomi jigéen yi gaaw jëfe li nga xam ne mooy santaane yàlla ci suñu yi nga xam ne ñooy tuwaale te guddi ak bëccëg dañu romb di tiitaru ci mbedd mi mbokk jigéen mi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo la sàkk yàlla subhanahu wa taala moo rafetal sa kanam yàlla subhanahu wa taala moo rafetal sa dox lan mooy te nga nangul ci yàlla subhanahu wa taala sàng ko comme ni la ko borom bi san sante te bu sooboon borom bi subhanahu wa taala léegi mu soppi sa mbidéef bu booba waxuma la muur sa kanam waaye sa yaram yépp da nga ko muur kon del fàttaliku kàttanu borom bi subhanahu wa taala gi nga xam ne moo rafetal sa xar kanam moo rafetal sa bind moo rafetal ni ngay doxee saa su ne borom bi subhanahu wa taala mën na koo soppi waxtu wu ci nekk borom bi mën na koo def nu ko soob kon nangu ci na nga ci nangul yàlla subhanahu wa taala na nga ci gërëm santaane borom bi subhanahu wa taala jëfe ci li neex yàlla subhanahu wa taala te gaaw jëfe li nga xam ne mooy santaane yàlla waxtu woo xam ne aaya dab na la wala sunna yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk jigéen mi nga xam ne da ngay déglu téere yàlla bi subhaana kaay toppandoo ñi nga ne ñooy jigéenu ansaar keroog bi yàlla subhanahu wa taala wàccee ayatul xijaab ñi mu fekkoon ci toolee dañu doon xar seeni kumba di ko muuree seen kanam di ko muuree seen yaram ba ngir bañ góoru jàmbar gisati ci ñoom dara comme yàlla wàcc na ayatul xijaab kaay nga def ñooñu ñuy sa royukaay kaay nga def Aysa muy sa royukaay te nga def Xadija muy sa royukaay su ma yemi njëkk a faatu ci lislaam ngir gëm laa ilaha illallah teg ko ci sa kanam mu nekk sa royukaay weddi ñi nga xam ne ñooy yéefar yi nga xam ne saytaane moo leen di wooteloo ñuy taaral yow mooy yàlla ñuy rafetal teewu mooy yàlla subhaanahu wa taala nga nekk ca loola foog na yaa ci nekk kon bokk jullit kaay nangul yàlla subhaanahu wa taala jëfe li nga xam ne mooy santaane santaane borom bi subhaanahu wa taala mbokk jigéen mi nga xam ne yaa ngi ci mbedd mi yaa ngi ci place yi di sangu ak góori jàmbur ñi yaa ngi toilette ba mel na nga bëgg mel di dox ci mbedd mi di di di tëgalu di wane sa taar di wane sa toilette yàlla subhaanahu wa taala mi ngi lay woo ci yërmandeem yàlla subhaanahu wa mi ngi lay woo ci njëggalam loo ëppal ëppal ci mooy borom bi subhaanahu wa taala loo ëppal ëppal ci soppi sa bind bind bind bi yàlla bi subhaanahu wa taala di xeesal loo ëppal ëppal ci sol li nga xam ne mooy li yàlla xaraamal njéggalug yàlla moo gën a yaatu sa bàkkaar yàlla subhaanahu wa taala mi ngi lay woo borom bi nee na inna allaha yaxfiru dunuba jamia kaay tuub ci borom bi subhaanahu wa taala mu jéggal la lépp loo xam ne defoon nga ko ak lu mu bëri bëri ak lu mu réeréy mbokk jullit am na loo xam ne war nañu ko bàyyi xel mooy jigéenu jullit buy wuyu ji yàlla subhaanahu wa taala moo xam ci jàkka yi la wala bërëb yi ñuy sàkkoo ji xam-xam war naa góorgóorlu tënku ci santaane borom bi subhaanahu wa taala muuru comme ni ko yàlla bëggee di dox ndànk ci cati mbegg pegg mbedd yi bañ dox ci digg mbedd mi su demee ci jàkka ja nekk fa place yi nga xam ne moom la ñu jagleel jigéen bañ a xeeñu parfum bañ a feeñal bañ a feeñal toilette su julee ba pare nekkit ne cell comme ni ko docteur Mouhammad hafisahullah bàyyi woon xel ci waxtu wala weesu bañ a jaxasoo ak góor ñi nga xam ne mooy bunt yi ba ñu yëkkati kàddoom waxtu wi nga xamee ne sëlmal nañ ci julli waaye toppaat peggi mbedd yi ba yegg fu muy jëlee oto dellu ci li nga xam ne mooy santaane borom bi subhanahu wa taala aïsa radiallahu anha daana wax naan law raa rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma ahdasuhu nisaau baadahu la manaahunna min al musalla aïsa daana wax naan yonent bi bu gisoon tey li jigéen ñi di def ci jàkka yi kon dina leen tere ñuy teewe li nga xam ne mooy jàkka yi xoolal lii aïsa radiallahu anha wax ba keroog ba mu koy wax mi ngi ci quruunul mufaddala kon naka mu tey suñu jàkka yi tey ak suñu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi koy teewee mbokk jigéen mi nangul yàlla subhanahu wa taala di dem ci jàkka ji wala ngay dem ci bërëb yi nga xam ne fa la ñuy sàkkoo xam-xam jégal ne perte bépp perte mooy nga jóge sa kër ngir sàkku ji tiyaaba delluwaat sa kër yóbbu bàkkaar ak ñaawteef te loolu loo koy yóbbu mooy ci sa toilette wala ni nga xam ne noonu nga solo bi ngay dem ci jàkka ja wala jëf yi nga xam ne jëf nga ko ca jàkka ja moo xam ci wax la wala ci jëf loolu mooy wàññi sa tiyaaba ba far jural la bàkkaar yàlla nañ ci borom bi subhanahu wa taala musal ibadallah xudu ala aydi sufahaikum wasaaw jamian li islaahi anfusikum wa banaatikum wa nisaaikum wa usarikum tasluxu mujtamaatikum wa ummatikum hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala rahmati almuhda wa nicmati almusda nabiyukum muhammad ibni abdillah kama amarakum rabbukum jalla fi ula fa qala azza min qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله